mais doon day jaay ay carte de membre carte membre yi ànd ak ñu war a former ay comité comité bu nekk nee nañ comité cinquante personnes moo koy constitué cinquante personnes yooyu bu ñu koy formé bu ñu ñëwee seen dina formé xamal ni trente cinq personnes war nañu taxaw quinze yi des nag bu ñu amee seen carte d'identité baax na nee naa leen képp koo xam ni am ci nga bokk nekk président du mouvement nañ la nga taxawal sa comité. monsieur le ministre à l'heure où je vous parle tey jii yow fu ma xew nii am ci pare na formé dix comités yoo xam ni defar nañ ko ficelé nañ ko ba lépp pare na ñu taxaw nii am ci à dix yoo xam dès lundi nañ ko ko nañ ko envoyé waa direction ñu programme nañu ñu ñëw ñu monté mais on va continuer parce que bëgg nañ fépp foo xam ne am ci am na ko représenté fépp xam ne fam taxaw ne xam ne am ci am na plus de cinquante président donc war nañ mën a am au moins gàtt gàtt gàtt ba le en plus de la cinquante communautés au minimum donc incha allah on va travailler si ça bu ñu fi jógee président bu nekk xoolal li nga am ay nit nga récupéré seen carte bi soo mënut a defar liste bi soo mënut a defar liste bi jëlal carte d'identité bi nga photocopier ko bind numéro waa ji a ginnaaw carte d'identité bi boo ko defee dañ mën a ñëw remplir la say fiche ba xam ne dina nekk bu normal. ramasser leen les cartes d'identité ñu nangoo bokk daf ne nag nag clair ñu nangoo bokk APR ñu ko jàpp ci kii ramasser seen carte ngeen di am seen carte photocopier ko bi ci ginnaaw buñ ko dajalee ñu mën a defar liste bi comme ça ñu monté leen seen comité. donc monsieur le ministre ma ñu guddal ñu yem foofu dañu ko dox ndaje balaa yàgg dinañ yaa feneen def lu mel nii. kooku mooy Dallinkor bu mag kooku mooy wax dëgg yàlla mooy suñu parrain naturel. muy monsieur le ministre Abdou Ndéné Sall un homme très généreux un homme très courtois un homme de dignité un homme de parole parce que lii ba ñu commencé ak moom dafa ni man dinaa leen jàppale li ma leen di jàppalee nag dem dama leen di jàngal nu ñuy nappe parce que lii nga xamante ni tey moom la fi jigéen def lépp ci Abdou Ndéné Sall la jógee parce que moom moo njëkk a génnee financement jox ko waa moo njëkk a génne alal teg ko ci suñu loxo kon ni ko Chérif waxee jàngal ñu ni nga xamante ni moom la ñuy manipuler ay billets di def ay crédit revolving ñu pare ci loolu ñu former ay kees ñu pare ci loolu mu ni dama leen di accompagner ngeen def seen ay formation def def entrepreneuriat parce que dama bëgg ngeen autonome bu leen paree dinaa leen jox ay financement ngeen yeggale seen liggéey te fam ñu tegoon ba léegi foofu la ko teg kon tey ñun bu ñu taxawee fii wax dëgg yàlla ci fooñi formé fi ñetti groupement jël produit bi exposé ko nii ñépp ni gongo Abdou Ndéné Sall moo tax kon moom ñi ngi koy sant di ko gërëm di ko won ne li président Macky Sall bëgg ci Tivaouane bëgg ci Sénégal moom da koo jiital ci Tivaouane muy développement te foo ko fekk mi ngi wut lu développé parce que formation permis def na ko fii formation leadership def na ko fii formation euh, communication digitale def na ko fii ay formation formation yu mu defal jeunes yi ba ci technique yi nga xamante ne moom la ñuy rédiger CV mu di ko jàngal xale yi ndax xale yi gën di am njariñ ndax xale yi gën di am liggéey kon kooku bu nee mi ngi participer ci développement Tivaouane mi ngi participer ci emploi des jeunes mi ngi participer ci autonomisation des femmes kon loolu bu buñ ko waxee fii ñëpp koy gën parce que ñun exemple lañu ci li nga xamante ni moom la liggéey fii ci Tivaouane kon mënuñoo wax te duñu tudd loolu moo tax ñu woo ko mu toog nii parce que ñun bu njëkk buñ daan def suñu formation buñ nee exposé dañuy woo groupement yi présidente bu ne ñëw bokk ci président euh, groupement bi ñu formé mu ñëw ñu def suñu exposition jënd ko ci suñu biir mais dañ ne lii mënul ñàkk il faut que kuy liggéey di liggéey à un moment di nga taxaw seetlu wane sa bopp wane li nga xamante ni mooy liggéey bi te nit kat bu baaxee généreux am alalam président Macky Sall wóolu ko ci département Tivaouane jël département bi teg ci loxoom mu tànn jigéeni département bi di leen teral kon bu nu ñëwee ba fii ñu ñu bokk ci ñu mu teral kon dañu koy wax jërëjëf jërëjëf yàlla na yàlla fay ko. ndax nag yombul yombul nga boot ay jigéen ñu la mag ak ñoo mat ñu déggal la. ñu àndandoo nag ci liggéey bi lépp ci euh, Père Modou rek moo ñu jàppale wàññi nu ñuy nappee waaw ndax li ñuy liggéey nag mi ngi nii yéen gis ngeen ko li ñu liggéey mi ngi nii ñu présenté moo ñu jàppale ci formation yi jàppale ñu ñu def savon liquide euh, saabu eau javel yooyu yëpp ci suñu groupement yi la moom moo tax xam naa nag wax bi moom mënoo gudd maa ngi sant ñëpp ndax dañoo jàppale ba géntale ñu seen fay nag ñu ngi remercier la ñun ñëpp bintal mi nga xam ne mooy suñu président euh, dafa am bébé moo tax gisoo leen ko fii waaye ngeen ñaanal ko yéen ñëpp te invité nañ leen demee allah ngeen ñëw ci beneen bi waaw ah, ñu ngi kontaan tamit ci rafetaay ak yëpp xam man moom damaa mënul wax loolooy problème bi waaw maa ngi remercier yéen ñëpp di remercier Abdou Ndéné Sall Père Modou ñu sonn ci ñun jàppale ñu te yàlla tax te jàppal na jigéen ñëpp nag ak mboolum jullit te ñu koy ñaanal lépp ñu fi def yàlla ñu ko yàlla fay ak mboolum jullit kontaan naa ba mënuma wax daal merci beaucoup. ñu ci rek la ñuy liggéey parce que ñu ñoo ñu jàngal liggéey bi ñu ñëpp jaar nañ ci ñaan yàlla rek yàlla àggale liggéey bi may leen guddi fan ak lépp loo xam ne rek bëgg nañ ko yàlla defal leen ko ci barke Muhammad